ci yéenekaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye dal leen ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo ñu daal di koy door ak Le Quotidien yéenekaay gi dañu xamal ne kàddu yi nga xam ne rek ko moom Abdoul Mbaye ko defee xam ne jamono ji nag bëri na ay responsable politique yoo xam ne ñi ngay xaalis te googale xaalis dañu ko luubalaal ay tap la yoo xam a xew leneen loo xam ne rek ay song yu métti yoo xam ne rek doon ko nañ ko ci réewum maanaam daal ne dañ ci yokk 10 pour cent yéen i gi duñu xam ne bëri na yoo xam daal maanaam daal yenn ci responsable politique seen xaalis googee war nañ koo xoolaat lijjanti ko lañ bët ko ba xool loolee googa la xaalis fan lañ koy jëlee fan lañ koy dugal yéene duñu xamal xoolal daal maanaam daal bu élection locale jotee wala sax élection présidentielle maanaam deux millions day jolli dix millions dàqe mel ni bu ma la ko wax di googa xaalis ñu koy jox askan maanaam daal xaalis googee dañ ko war a lijjanti ba mu leer naa ñi leneen loo xam ne jamono ji war nañu ko ci wàllu palais ga yéene kaay kaay gi dañu xamal jamono ji kay donte am nag yokkute goo xam ne rek am na ci waaye am na lu bëri loo xam ne des na ca ca jamono jojee laas yéene kaay dañu xamal ne maanaam daal jamono ji nguuru xam ne na ci moo di Thierno Bocoum ak xam ne nag moo di bi ak moo di Barthélémy Dias ak docteur Babacar Diop jamono ji bu ñuy wër ñoo xam ne ñoo nekk ci ku jégi ñu radical ñu saf sàpp ñoo xam ne daal nguuru Macky Sall gi mayuñu leen daal maanaam daal ay song yu nga xam ne ji dana jël yéenekaay gi dañu xam ne lépp loo xam mi Macky soxla ci wàllu xaalis ngir maanaam doxal li nu mel yoolee nag xaalis googee nag ña ngi xaar réewum France ngir mu dugal ci loxo xamal ne foo xam ne daal boo moytu lambaay dina fa ñaaw moo di waa Mbour ak ñi xam ne moo di seen mairie ba jamono ji nag yooleen nga dañoo jàpp ne ak luubal goo xam ne rek

moom kay ma nga réere fi nga xam ne rek moo di kër Mbay Faal daal feeñam fi nga xam ne rek moo di dëkk bu sell bii di Touba yéene kaay gi di l'observateur gën a jege mbir mi ne leen may leen man def leen nànk rek ma nett leen mbir ak na mu demee Kumba Kan mi nga xam ne amoon na ñeenti bant yéene kaay gi duñu xamal ne bàyyi ko woon fi nga xam ne rek moo di kër Mbay Faal moom nag boobaa léegi daanaka ñaari fan yoo xam ne rek gisuñu ko mu ne fes ne mes na mente gannaaw nag ba mu wooyee ñi nga xam ne rek ñoo di seen waa kër te na jamono ci nag lañu ko sàcc moom Kumba dafay xam ne ñi nga xam ne daal ñoo ko jëloon ñaari nit daal ñoo ko sàcc ca oto boobee nga xam ne rek lañu ko jëlee woon am na génn jigéen goo xam ne rek ma nga ca woon ñu dem ak moom ba àll bi Linguère ba moom Kumba xam ne ay bandi ay defkatu ñaawteef ñoo ko jëloon waaye nag gannaaw ba nu ko jëlee mbir yooyee nag tey na xel maanaam daal kumbakan mi daal bu fekkee ne naan dañ maa sàccoon damaa dóor waaje mu xëm damaa def nii damaa def naa ba jee dëkk bu sell bii di Touba nañu wax dëgg mbir ya na mu demee mbir yi doy na waa